asalaamaaleykum mbokk internet yi maa ngi nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant ak travers Senewood TV tey nag ñi ngi fii Pikine rue 10 angle Dominique ma fas yéene leen présenté benn ndaanaan bu mag ndaanaan boo xamante ni dafa gëm boppam ndaanaan boo xamante ni aussi dafa xarañ ci li def mi ngi tudd Wemba Alliance le Donneur du Bois Wemba ñu ngi lay nuyu. maa leen di nuyu leen fay di leen sant. Wemba dama lay bàyyi nga présenté wu. je m'appelle Lamine Fall on m'appelle Bemba Fils mais sama mbokk yi nee na je suis le dompteur du bois. mais Bemba pourquoi le dompteur du bois. parce que je suis amoureux du bois. di ko doon c'est ma première femme. et comme ko mbër yi di waxee rek ci deret bi la doon ko sama baay te lépp lu may def sama àdduna bant na mu ko kon yow daal comme ni ñu mën a wax ji yow da jat bant da koy jat. n'est-ce pas mooy le dëmtaw te man musuma gis ko musuma gis benn menuisier buy jat bant te man musuma gis bant bu ñuy jat et pourquoi loolu tugna du teew ni nataal boo xoolee la la woon nii yëpp li nga xam ni bant bi dañ koo jat yaa kii si parce que j'ai posé dëgg la Vemba Vemba dama lay laaj yow ban façon bois nga gën a mën a liggéey ba sentir sa bopp man bois bu ma mën a liggéey ba sentir sama bopp bon bois yëpp bois bu ma liggéey damay sant si sama bopp parce que j'ai pas le choix dans le bois tant qu'il est bois j'aime Vemba gis si matériel vuna yi ñuy Sénégal loolu nguur gi dañuy si war a jàppale parce que ñun dañoo war a gëm suñu bopp bu ñu demee ba ma osé naa la dompteur du bois vana yi nii andi Sénégal ñun suñu wàllu bopp xam ne ni dara baaxul franchement parler c'est pas pour le critiquer ñun dañoo war a gëm suñu bopp ba ñu jëlee indépendance ba léegi mënuñu fexe ba gëm suñu bopp te foogoon nañ si ba ñu jëlee indépendance dinañ xaw a muus man boo xoolee meuble yi may liggéey fii bu si ne mun naa la ko garanti plus de 10 ans mais ba naay nii jëlee occidentaux yëpp man musuma teg sama bët boo xamante ni il la réussir à faire un an dans les six premiers mois dinañ ma woo bu ma def di réparation yi loolu tax man sama wàllu bopp bu ma wóolu si mode de bonheur ma ko laal dama gën sama bopp ma bëgg gars yi consommer sénégalais bëgg gars yi consommer africain il est temps ñu yeewu te consommer local. Euh, que pare na président des artisans. pour moi je le déjà. Ah waaw. parce que maa osé fu mu toll biir Pikine def lu kenn sañu to def. muy lan loolu. tu peux faire le tout tu ne verras jamais une galerie d'art biir Pikine. le pourquoi je vais te le dire nit ñi c'est parce que dañoo waral dañoo dese ci seen bopp loolu tam man ma imposé wu tijji galerie d'art biir Pikine ci biir banlieue bi y en a mais y a pas dans le banlieue ci biir banlieue bi ba pare en même temps ñu créé mu nekk une centre de formation professionnelle pour aider les jeunes ndax man gëmuma kuy dox di tàll loxom pour man. Chaque citoyen a droit à une profession. La manière de lutter contre la pauvreté, c'est que chaque citoyen a une profession. Tant qu'il n'y a pas de profession chez les citoyens, il toujours la pauvreté. dëgg la dégg nañu ñu wax bu baax a baax man dama sama ginnaaw dama fee gis ay président gis naa fi Senghor gis fi Abdou gis fi euh, Abdoulaye Wade gis fi tamit Macky lan moo waral ñu pour vous te dire vrai Sénégal ba mu dañ man ñeenti tête ñoo ma jaaxal peut-être le suivant qui sera le cinquième président parce que c'est pas facile nga nekk président wu réew même réew lu mu tuuti tuuti ils ont travaillé ils ont osé ils ont gagné di nekk palais jiite mi mun am ñu mu neex am ñu mu naqari ñoom ñoo raak ba àgg fu ñu àgg donc man ni dama gëm sama bopp ci li may def a raak ba nekk président wu bant nekk le docteur du bois dëgg la Demba léegi dégg naa sa wax man dama bëgg a xam aussi kan moo la inspiré yow ba nga dugg ci euh, bant bi dafa nekk loo xamante ni dafa doon ko doon wala dafa nekk loo xamante ni dafa ñëw comme nii nii rek. bant yi dafa nekk loo xamante ni dama koo doon parce que sama papa Senghor moo ko fi am yoon le premier président il a assisté à la première foire internationale du Sénégal en 79 donc moi je après. après a papa il a de l'Angola pour venir au Sénégal il s'est installé mu toog fi nekk Sénégal di liggéey di liggéey ba période Abdou Diouf ba Abdoulaye si deuxième mandat wu Abdoulaye Wade c'est le pas au pays bon de retour au Bercail dafa préféroon pour ñëpp man j'ai opté rester pourquoi j'ai opté rester c'est parce que damaa gis il n'est pas question que le nom de Bemba du jour au lendemain du Sénégal je suis resté yëkkati flambeau bi ba ca kaw ndax sama turu Pape bañ a fay. dëgg la Bemba comme mun nañoo wax ni affaire bi daal doon la te si sa papa nga ko doonoo léegi yow en quelle année ban année yow nga ci dugg loolu bëggoon naa kaa xam te paa bi aussi yow ban année la dem bàyyi leen fi. sama papa mosul bëgg sama dugg ci art bi parce que il avait opté que je fasse mes mais man bizarrement daf ma daan jox sama xaalis su fay école sax ma dem jëndee ko ay bant yóbbu ko si atelier bi di daj ay banc ak fondaat mu dem ba xool ko di convoqué ko école nga xam ne xaalis bi yëpp ay daan dama ko daan lekk di ko jëndee ay bant boo mu nekkoon kii bàyyi mu bàyyi si bant yi <laughs> noonu laa duggee si bant yi. kon mun naa ni xamoo mu jàppoo aussi ban année la parce que euh, bant yi nekk nga ci depuis nga nekk xale ba tey am na solo yow. Mbemba man bant yi aussi gisuma si yow bant yi nga defar yow gisuma si benn compte gisuma si dara daal gisuma si dara dama bëggoon xam ba xam ne lan ngay machine ngay liggéeyee wala dara ba man musuma bant yi dama gis mu set wicc bon dinaa utiliser machine bi ci première euh, position bant bi parce que tronc lay balaa ñu koy def euh, bant garab la dañ koy dagg scier ko tronc lay koy defar meuble mais lu tax mu am yenn finition bi nii c'est peut-être l'amour que j'ai teyaluma li may def te li may liggéey dama koy jox àqam ñu bëri nga gis ay bon ak ay ràcc ci seen liggéey c'est parce que yàkkamti te ku yàkkamti yàqule mais c'est pas de leur faute aussi parce que ñu bëri du ñu fay ñu ko jàpp donc pour nga liggéey yenn pièces yu am qualité yi il faut être de ce qu'on fait ngay def nank def collage yi def semblage ça prend du temps tu laisses mu sécher tu reprends mais quand tu es pressé tu es obligé de def euh, taf taf nga joxe ko et puis du am garantie donc moi je suis amoureux de ce le fais avec passion avec amour avec rigueur et envie c'est ah, pour cela peut-être ba léegi la ma bëgg ci bant amaguma ko de damay jéem même ba yow bant yi est-ce que amoon si jafe-jafe comme banlieue bi xam nga banlieue ku ci ku nekk xam na ni banlieue bi aussi metti na surtout boo liggéey gëm sa bopp tamit dina am ñu bëgg am ñu bañ est-ce que amoon si jafe-jafe par rapport ak yeneen menuisier yi amoon naa si jafe-jafe bu baax sax parce que li ñu naan tout début est difficile ndax dama doon liggéey di imposer sama style yenn menuisier di critiquer ne booy bi dafay jéem a jaay aay et tout ça alors xamuñu ni combat bi may mené suñu combat ensemble la parce que pour man réussite balaa moo am il faut ni am esprit de créativité <coughs> je <coughs> ni bàyyi euh, répétition yi par exemple boo demee léegi ci kaw tali bi di nga gis benn modèle lal mun naa la ko woon dix personnes ñoom ñoo ko defandoo exposé ndoo ko di ko jaay mujj gi day dem lu waay dégg jaay am ñu esprit de créativité dañuy bàyyi benn vingt fis créé benn affaire ñu jënd si tali bi diis personnes yëpp def ko loo tax man samay œuvre dama koy protéger comme nu artiste yu di protéger ay œuvre am samay banc yi dama ko protéger comme nu nit ñi di protéger seen cassette hologramme et tout mais ndax léegi sama différence ak ñoom mooy dama fexe ba créer loin de l'ordinaire di liggéey pièce ak meuble yoo xamante ni ñoom seen wàllu bopp peut-être mun nañ ko defar mais dañ koy tayal amul ak passion bi ma ci am laa leen daanee